encore une fois nous avons interpellé euh, encore le président de la République sur la situation de l'électricité euh, à Kaolack euh, courant le président de la République a daf ci pour beaucoup Sénégal Sénégalais, yëpp courant Le président de la République a kenn fenn pour ngay la Sénégal say adversaire politique kooku président sant ko kenn ku ko def ku ne yaa ko defal sa bopp ku ko def ku ne yaa ko defal sa bopp waaye président santul ko kenn président bu sañoon bépp dëkk ci Sénégal am courant loolu la bëggut loolu lay fexe loolu lay seet xeex koo xam ne nag sa base daf la viddi nga jël euh, li nga xam ne moom la askan wi bokk di ko xeexee kooku c'est pas normal du tout kooku kooku warul te président santaani ko kenn président. Euh, daan na gagné Sine Saalum avant Pape Demba Bitèye ñaata élection la gagné Sine Saalum avant Pape Demba Bitèye bëri na bon bu bu ko Pape Demba Bitèye de tesan léegi bu mu yàqal président euh, base politique am bi nga xam ne am na ko Kaolack te ci yàqal ko ci la nekk ci yàqal ko ci la jëm parce que bu jëlee arme bu jëlee courant bi def ko arme ah di ko di ko xeexee ay anniversaire am ko jaadul warul courant ku ne def ci am droit parce que moom ëppalewul ci kenn moom ëppalewul kenn ci courant. ba mu jël courant bi di ko xeexee keneen ah ñam koy xeexee ci njeejeen ñu ñu suñu suñu famille lañ ah suñu mbokk lañ man sama ndey mu ngi juddoo njeejeen heureusement di njeejeen ah bon c'est pas bon du tout mu jël euh, ñooñu Macky Sall lañ gëm gëmuñ keneen président de la République la ñu àndal avant tout président avant Pape Demba Bitèye ñu àndatoon di ko jàppale amaana bu ñëwee ba foofu nag jël arme bi nga xam ne mooy arme Senelec di leen ko xeexee ba maire bi ci boppam Euh, di ko wax lolou damay wax ni jaadu warul ta mer bi lima ko wax na deug mer bi wax na deug boobu mer bi wax na deug maire bi wax na deug mo mo fa dem ah ci lamagnam ah ne jox len dat pour ngoy gëna indi courant dat ba jori ñu suspend nak situation bi ngir lan election bi mu passé gañu fofu ça c'est pas bon du tout koku baxul lolou du arme bu rafet du arme bu noblesse koku du arme bu bax mangi mangi wax wa département Kaolack nañ jël sen précaution ñom ñep xam ne raison bi ci boppam maanaam courant bi warugar la pour ñëpp am ko Sénégal moo ko moom doomu Sénégal yi ñoo ko moom président de la République dafa jóg te xeex ndax bi muy jël réew mi booba courant da doon coupé ah tey président ci effort am ci compétence ak capacité am ak expérience ak mbaaxam ci le président taxaw te xeex ba tey courant bi tasaaroo ci Sénégal fu bari bon fépp foo xam ne amoo courant warugar la nga am courant warugar la. ñu jox la courant koo xam ne da nga bëgg a gagné sa base te amoo amoo nit bugg a jël arme boobu imposé ko nit ñi pour nit ñi otelé pour loolu dama ne waa Saloum dañu nangu loolu dañuy bañ waa Saloum dañuy bañ loolu te su boobaa dana yàqal président dana yàqal benn benn bokk yaakaar mën naa dem ëllëg ba lii baara liste bi parce que Saloum ñëpp ay mbokk lañ. bañ ñu ko ba ñom dañ ne seen mbokk du seen mbokk seen bop la salum daf ne seen doom du seen doom ndax ndax lu mom la tuddu bu arrête Pape Demba tey situation yi nga xamni yang koy doxalee ci département bi jël arme jël courant bi def ko arme jël ay poteau lampe ko sari ci ngeen dëkk yi nga xam ne xamul dëkku lan la te ba légui amuñ courant ah ah ba ngir da do len nobé do len mébé pour ñu woteel la ah donc amu basse politique da nga war wax dëgg président de la république xam nga ko amu basse politique mëno dem amna ñoo xam liggéey dimb ak barki dimb loo xam ne buñ koy bañ koy def boobu président gisuñu la bon nag bul yàqal président région bi bul yàqal président département bi bul yàqal président sa situation yi nga xam ne tey yow ci nga nekk bi nga xamee ne amu base politique pourquoi ngay xëccoo pour nekk député kan la kan mooy fal nit koo xam ne xamul la kan mooy fal nit koo xam ne maanaam amoo amoo cër bi amoo mérite bi soo amoon mérite bi wala nga am cër bi ni kon am na yaakaar nag doo jël arme Sénélec di ko xeexee pour lan éliminer ses adversaires pour xeex ses adversaires kii li nga xam ne ñoo ko bokk ak yow dama ne loolu jaaduwul loolu maa ngi wax président de ne ko loolu ja loolu daf koy yàqal li nga xam ne da koy yàqal li nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy mu koy yàqal li nga xam ne loolu foofu ay militants am ñoo fa nekk ay xaritam ñoo fa nekk ay sympathisants am ñoo fa nekk.

mon laa il est requis, requis. à situation goût. merci